li ñuy tuddee booleeg melo maanaam tisbaar jot nga bañ a jóg julli ko bàyyi ba takkusaan jege nga waaj menn waaj dal cay julli tisbaar takkusaan jot nga far ko ca sësale benn yoon ak it timis jot nga bañ a jóg julli ko fi saasa xanaa bàyyi ba gee jege nga dal di gaaw waaj julli timis ca mujjug muxtaaram gee jot nga teg ko ca loolu mooy booleeg melo kese ni nga ko xamee loolu la ne ki nga xamee ne moom tukki baa tax mu def ko wala ak wéradi xeeti ngànt yi moo tax mu def ko yàlla da koy bindal tuyaabay ku teeloon a julli julli gu jëkk ga ca ba waxtu way door a jot ndax julli gu ne teel koo julli ba muy door a jot da ab tuyaaba yéexe ko ba njëlbeen ga jàll lim ci teg nag ne wali saxiixi ñeel na aji wér jë fi'luhu ak defam mooy yow mi nga xamee ne dara dalu la tukkiwoo amoo benn ngànt sañ nga loolu ba tisbaar jotee nga yéexe ko ba waxtoom di bëgg a jeex nga door a gaaw julli ko takkusaan jot nga sësale ko ca ak timis jot mu bañ koo julli fa saasa bàyyi ba gee jege mu daal di gaaw waaj julli timis ca mujj gu waxtoom naka mu noppi gee jot mu far ko ci sësale ci wenn waajtaay wi loolu noppale na te ku ko defit doo ca am bakkaar waaye nag ka amul ngànt def ko moom des ko bindal tuyaabay ku teeloon a julli tisbaar ca ba muy door a jot ak ku teeloon a julli timis ca ba muy door a jot ndegam danay am ñuy faral laaj nu ñuy jullee ci lu mel ne oto wala saxaar wala avion kon nu joxe ci lu néew a néew ci leeral boo nekkee ci warukaay bi muy oto muy saxaar muy avion te nag mën laa jublu xibla rukkoo sujjóot na nga ko bëggee waaye nag nga dema dem ba waxtu waxat nga xam ne jàpp nga ne daal moom soo wàccee doo mën a julli sax benn rakka waxtu wa jeex mbaa boo wàccee day fekk waxtu wa lépp jàll kon na ngay seet rek noo mën a jullee ca biir warukaay ba soo mënuta rukkoo mën laa sujjóot mën laa jublu xibla itam na nga mën a jullee rek jullee ko waaye bu la waxtu wa raw bu dee ci gis-gisu waa Maalik nag bu fekk amee woon ak laab te it waxtu wa tàmbali na ba waxtu wa jeex te amoo loo mën a jàppe amoo loo mën a tiime kon julli googa wàcc na la bu dee gennoo bu dee yaar ak bu ko ëppee julli ga wàcc na la boo jullee noonee ci ñàkk laab ga te it doo fay julli ga amoon na wute waaye jooju wax moom la Maalik waxoon ñu taamu woon ko ca kon li nu wax léegi nga jullee na nga mën a rek day fekk nga amee woon ak laab ni ki am njàpp wala nga gis loo mën a tiime te it ñii ubbee dañuy wax ne jublu xibla ak rukook sujjóot dañ koo sàkk lool ci julli ba tax na ndegam boo jullee ca muxtaar ma ci biir avion ba mbaa ca oto ba doo mën a jublu xibla doo mën a rukkoo doo mën a sujjóot te nag boo yeexee julli gi ba wàcc du fekk waxtu waraw la muxtaar ma rek mooy jàll nga julli ca daroor yi waaye du fekk moom waxtu wa lépp jàll kon na ngay bàyyi rek ba wàcc mën a julli julli goo xam ne da ngay jublu xibla rukkoo sujjóot ca daroor yi gannaaw ba nga wàccee ca warukaay ba moom ngay def waaye bul ne rek waxtu yu jot na mënumaa jublu xibla mënumaa rukkoo mënumaa sujjóot kon naa jullee ni ma mënee bala ngay def loolu day fekk rek mu wóor la ne waxtu wa ngay wàcc dana fekk waxtu yi lépp jeex ba soo julleewul nii ci warukaay bi da nga faat waxtu wal hichaaani timis ak gee kam zuhurayni ñu ngi mel ne tisbaar ak takkusaan wax ji gën a woo mooy niñ sañ a boolee tisbaar ak takkusaan noonu lañ sañ a boolee timis ak gee waxoon naa ne bàyyi leeral dama doon sësale bu ma waxee ni ñuy boole tisbaar takkusaan lay cay teg nañuy boolee timis ak gee moom la saraabu yi gën a gàttalaat di wax naa wa alayhi ida garabat alayhi shamsu wa huwa nazilun wa nawa al irtixaala wa nuzula بعد الفجر جمعهما جمع تقديم قبل ارتحاله وإن نوى النزول في الثلث الأول أخر الحشاء وجوبا وإن نوى النزول بعد الثلث وقبل الفجر خير في الحشاء والأولى تأخيرها لأنه ضروريها الأصلي وإن غربت عليه الشمس وهو سائر ونوى النصول في الثلث الأول أو بعده وقبل الفجر أخرهما جواسا على ما مر وإن نوى النصول بعد الفجر جمع جمعا سوريا بناء على امتداد مختار المغرب للشفق ومن خاف كرقل إغماء خم أو نافضا wala sibrus naafid aw maydan wala miir inda duxooli waqti taaniyati fa tàbbik waxtu jullik ñaareel ga qaddamaha kon mu sañ koo jiital tisbaar takkusaan ci wet ak timis ak gee ci wet bul fàtte ne ñoom ñaar rek lañ sañ a boole mu ne nag bu tisbaar jotee nga ragal ne waxtu wa takkusaan di jot dalay fekk ci xëm mbaa kiris mbaa amee sibru soo xam ne danaan ñëw ci yow def ab jëll te waxtu woowa lay ñëw wala sax nga ragal ne boo àggee ci takkusaan daal da ngay miir ba doo mën a julli na nga ko bëggee kon daañu la may boo jullee tisbaar rek fi saasa daal cay sësale takkusaan bu doon timis ak gee it noonu la bu timis jotee nga am wérug ak sagook mën a julli timis ragal nag ne boo àggee ca gee moom kiris mbaa siburu daañu la may kon ba tey boo jullee timis daal ci sësale gee fa saasay saasa fa in salima ndéem mucc na nag ahaada mu baamu attaaniyata jullik ñaareel ga bi waqtin ci waxtu ba nga boole yaari julli ya ndax ragaloo ne boo àggee ca gu ñaareel ga da nga am ngànt nga àgg ca gu ñaareel ga loole nga ragaloon amut nag far kon julli nga julli woon baaxoon na waaye sopp nañ nga baamu julli ga li fekk waxtu way jeex li fekk daroor yu jeex rek bëgg nañ nga baamu jullik ñaareel ga mel ne tisbaar jot mu ragal ne bu àggee ci waxtu takkusaan wa jéelub asma ba ko daan dikkal dana ko dikkal mu daldi boole tisbaar takkusaan ba mu àggee ci takkusaan ga nag far jéelu asma ba ko daan dikkal dikkalu ko kon takkusaan jëm teeloon na julli baax na waaye sopp nañ li fekk daroor yi di jeex li fekk jant bi so rek daañu sopp mu baamu ko wa fi jamhil xishaayni daañu maye ak jàppandal ci boole timis ak gee bi kulli masjidin ci jëpp jàkka li matarin ngir ab taw aw tiinin wala ngir ban maxa zulmatin bu ànd ak lëndëm daañu maye boole timis ak gee maanaam julli timis sësale ci gee fa saasay saasa su fekkee laata ñuy tàmbalee julli timis day taw taw bu bari wala ni asamaan si mel bu ko masaa mel dana taw kon dañuy maye ñu daal di boole timis ak gee su fekkoon ne it tawut nuruwul li taw waaye dañoo toll ci mujj gu weer wa guddi yi lëndëm mu boole ci yoon wi ñu aw am ban boo xam ne boo ci dëggee day summi say dàll neexuta aw yaar yëpp bokk tase lëndëm ak ban bi daañu maye kon julli timis daal ci sësale gee fa saasay saasa waaye nag lëndëmu kese du tax ñu sañ a boole banu kese itam du tax ñu sañ a boole faaw yooyu yar day bokk tase suñu dee boole nag timis ak gee nuñ koy defee yu addanu def na nodd lil maghribi ñeel timis kal aadati niki aada wa yu axarutu dee fi koy yeexe qalilan tuuti tuma sulliyaa topp julleef leen ñoom ñaar bilaa faslin ci dul genn tàggale illaa bi adaanin dara ci ak noddu lil xishaay ñeel gee munqafidin guy aji suufe fil masjidi ci biir jàkka ja tuma yan sarifuuna topp danañu wëlbatiku ñibbi min xëyri dana fulin ci lu dul naafila ni ñuy boole timis ak gee mooy timis moom bu jotee rek nañ ko noddal nañ ko baaxoo noddale muy dañ koy xumbal bu dee rajo am na ñu yëkkati ko ca rajo ba bu daa taxaw ci bitti itam ngir bëgg mu gën a xumb mu taxaw ci bitti nodd nam daan noddee suñu noddee ne tekk as ndiir door a julli timis te bay julli timis ga ne daal di amaali yéene yi bu ñu noppee teg ci gee nga xam ne yéene yi boole gi ca ba ñuy tàmbalee julli timis la ñu amee yéene jooju buñ sëlmalee timis nag daal di noddal gee li xaamal ko waaye nag noddu geega moom ba rajo amee buñ ko yëkkati ci rajo buñ daa taxaw ci biti di ko xumbalit bi yoon nañ nodde ci biir jàkk ja te waye fal nodd ga rek ndax buñ ko noddee ci rajo ba mbaa ñu yëkkati ko bañ di ko dégg kon xëy na ku xamul la xew defe ne gee daa jot mbaa bañu doon timis booba timis daa jot toon mi ngi door a jot ak yu mel noonu geega moom noddam daal kon day suufe dañ defe ko ci biir jàkka ja bañ noppee timis nag def noonu noddal gee daal di koy liqaamal daal di koy julli fa saasay saasa daal di gaaw nag wàññiku dem seeni kër bali leen faa gee jote buñ nekk di fa naafila mbaa yi xam te lu dara ndax bëgg ak jàppandal moo tax ñu may leen ñu sëlmal timis teg ci gee fa saasa def ko wenn yoon buñ fa faree yee xam te lu nag ba gee jote leen fa ñu war a baamu geega wa wajaba war na niyatuhoo yéeneem ja maanaam faaw dañuy yéene boole ga ba ñu tàmbalee julli timis ci njëlbeen ga fa la ñu yéene bu noppee boole koo gee te ilimaan ja bu mu fàtte ne day yéene jiite ga ndax day lu ñuy sartu mbooloo moo tax wajaasa dagan na boole ga li mun faridin ñeel aji wéetoo bil maghribi ci timis yajiduhum mbir moom dafa leen fekk bil xishaayu ci gee koo xam ne daa julli woon timis moom dong ñëw ci jàkk ji nag fekk waa jàkk ji boole timis ak gee kon daañu ko may ak jàppandal ci mu far ànd ak ñoom julli geega fekki wutoon timis ja moom rek moo julli woon timis te timis kenn du ko baamu waaye du tee rek may nañ ko mu ànd ak ñoom ànd ca geega julli ko daldi mën a dem wali muqiimin dagan na it ñeel aji sax bi masjidin ci jàkk tabaxan ngir ak topp rek ñee ñëw di julli si las laalan nde du ngir ak temm maanaam du ngir yoonu boppam koo xam ne it dafa sax fa jàkka ja mel ne kuy li i'tikaaf wala rekk dafa dëkk benn yoon féete fa kooku amul ngàntul boole timis a gee ndax amul fenn fu muy dem moom foofa la nekk ci jàkka ja waaye nag daañu ko may ña fa dëkkut bu ñëwee di boole timis ak gee mu far ànd ak ñoom boole timis ak gee nga xam ne ak boole moom tabaxan ngir topp ñuy ñëw di jullisee ka dem rek la waaye bu doon moom dongu du sañ a boole mooy lastiqlaalan wala li jaari masjidin du caagéenu ñeel dëkkandooy jàkka walaw maridan ak doonte day aji tawat ayum ra atan wala jigéen koo xam ne fu mu dëkk daa jege jàkka ja nga xam ne ñëw ci jàkka ja yomb na ko mbaa sa yomb ko ndax dafa tawat bu bëggee bokk ci ñay boole timis ak gee faaw day ñëw ba ca jàkka ja waaye du mën a tolloole ci këram rek la muy jege-jege mbaa la muy tawat tawat mbaa la muy doon doon jigéen te tax ñu may ko mu toog foofee ci këram daal di tolloole rek boole ka ñuy boole timis ak gee ci jàkka ja faaw rek mu ñëw ba ca jàkka ja bu ñu nee jullig boole googu nag faaw mbooloo koy def waxoon nañ ne ilimaani raatib moom menn moom dong wecc na mbooloo menn moom dong bu nekkoon ci jàkka ja itam te sawa bi tax a boole timis ak gee am menn moom rek mën naa boole ñu jàppaale foofu ne boole ga ñuy boole tisbaar ak takkusaan foofee ca arafa ca bisub arafa ba ak boole ga ñuy boole timis ak gee foofee ca musdalifa xeeti boole yooyu moom sunna lañu bokkut ak xeeti boole yi nga xam dañ ko defuk jàppandal rek faslu li ab dog la moom da ci wax fi shuruutil jumuhati wa aadaabiha wa makruhaatiha wa mawaaniiha wa ma yataallaqu bi dalik daa bëgg a dugg ci jullik jumaa wax sartiyaag yañ ca soppak yañ ca aayeeg yéen ca sibëg teggin yaag yu bari yu ca aju al jumuhatu julli jumaa fardu xaynin faratay jëmm la xala zakari ci góor al xurri kadi gor xayril maadóori kudul kañu gàntal al muqiimi kadi aji sax bi baladiha ci dëkkub jumaa ja aw bi xariyatin wala ci ab dëkk mbaa barab sax rek naa iyatin bi aji soree an hu walis dëkkub jumaa ba bi ka far saxin ci lu tol na ki benn far sax minal manaari tàmbalee ca soror ba wa in xayra mustawtinin ak doonte du aji dëkk ca dëkk ba dëgg-dëgg julli jumaa ku mu war moom faratay jëmm lay doon mooy faaw nga def ko sa jaan door a wàcc bu ñëpp defee te yow defoo it du tax sa jaan wàcc du dee nga gàddu bàkkaar kam war nag mooy góor nga génn jigéen jamono ñu amee teqale gor ak jaam gor rek la war jaam génnoon na ci yooyu jamono ku amul ngànt it waaye ku am ngànt ca ngànt yee ñuy bëgg a wax ca kanam jumaa ja wàcc na ko mu sax ca dëkk boobee sax goo xam ne bu fa dëkkutit sax ga dana mat ñeenti fan mooy tax julli jumaa ga war ko moo xam dafa sax ca jëmmi dëkk ba jumaa ji nekk wala ci beneen dëkk boo xam ne boo ko dee seet wala sax nga ne beneen barab boo xam ne boo ko dee seet digganteem ak sorooru jumaa ja ëpput far sax muy ñetti miil mbaa nga ne ñetti miil ak ceeru miil daa mën ngaa far jàpp rek ne ñetti miil yeeg ceer daal du sori juróomi kilomètre ak genn wàll ci digg doomu daal mën ngaa jàpp ne koo xam ne fam nekk dëkk fa mbaa nawet bee tax mu dem fa di fa liggéey wala dafa toog di fa garde dara wala te éppal yu màngaan ku seet seen digganteeg soror ba daal mu yem rek ci juróomi kilomètre ak genn wàll mbaa mu yées ko julli jumaa ga dal na leen di war ku soree lu ëpp loolu nag moom julli jumaa ga waru ko mën naa ñëw rek nag bu ko soobee def ko ngir sàkku tuyaaba mu daal di wecci tisbaaram waaye du tax nag mu war ko koo xam ne nag moom nekk nga ci dëkk ba jumaa ja nekk lu dëkk ba rëy rëy doonte benn jumaa fa nekk it sa digganteeg moom doon kilomètres yu bare bari it faaw nga war a julli si su fekkee na it da nga faa tukki si dëkkoo fa waaye yéene nga faa sax ñeenti fan it julli jumaa ga dal di lay war bu fekkee yéene woo faa sax ñeenti fan nag kon julli jumaa ga du la war wa sixatuha wérug julli jumaa ga nag bistitaani baladin nekk na ci dëkke ab dëkk aw axsaasin wala ay néegi bant niki néegi ñax laa xiyamin du caageenu ay xayma muy ay tànt rek bi jamaaxatin ci mbooloo tataqarraa moom dana saxe bihim ci ñoom alqaryatu dëkk ba day tàmbalee wax sart ya tax julli jumaa gaa wér nga xam ne ku ko defee noonu ñu jàpp ne julli ga wér na duñ ko julliloo waat bu ko dee wàññi da koy def juróom waaye nag da nga gis ñu ne lii ab sart la ba noppi ci biiram mu ambaat yeneen sart làqu ca biiram bi mu njëkk a tudd mooy al istitaan ak dëkke maanaam al istitaan wute naag al iqaamatu al iqaamatu moom mooy sax rek donte saxuk tukki si dong la waaye dëkkoo fa al istitaan nag mooy dëkk fa dëkkuk sax fa di wéy nga xam ne ak dëkk fa la du tukki si fa rek dëkk fa buñ ne ab sart la day ambaat ci biir ñaari sart mooy buñ ne foofa na nekk ab dëkk ña fa dëkk nañu dëkkee na doon melo woo xam ne ku ko gis xam ne ñii yàllaa leen di toxal rek ci coobareem waaye dañ faa fas yéene sax di wéy lu mel ne pël yi niñ aadawoo di màngaan ak a màngaan buñ fekkee barab mu am am ñax ak ndox ñu nekk fa bu loola amatut ñu jóg toxu def seen néeg yooyu nga xam ne néegi jàpp ndal rek la ñooñu dañuy jàpp ne ñoo ñuy tukki ñoo yemoo lu ñu bari bari bari ca barab def seen néeg yu mel noonu rek dañuy jàpp ne dëkk amut ci tukki rek lay nekk sañu ñoo defar foofa jumaa te buñ ko defaroon julli ci itam julli ga du baax buñ aadawoo dëkkee néegi ñax mbaa néegi seng mbaa néegi tabax moom daal nañu dëkkee ne doon anam goo xam ne ku ko gis xam ne ñii dëkk lañu nar yàlla nag mooy dogal moo tax mu ne laaxiya min waxuñu bu dee ñu dëkkee ay xayma maanaam tànt yi arab yi dañ ko daan def yor seen tànt yoo xam ne dañu mel ne pëli rek di wëreelu fuñ gis ndox ak naataange samp seeni tànt bu loola jeexee ñu toxuwaat du ñu am sañ-sañu defar jumaa te buñ ko defaroon it buñ ca jullee du wér du tee nag ñu mel noonu buñ demoon ba ci dëkk bu am jumaa ñu campé ca pegg ba ci foo xam ne seen digganteeg jumaa ja mi ngi toll ci juróom kilomètre ak genn wàll rek kon kat julli jumaa ga dana leen war ngir topp waa dëkk ba mel ne dëkk bii tey ay pël bu ñu ñëwoon màng si daal ci wet gi te seen digganteeg fi jumaa ji nekk mi ngi toll rek juróomi kilomètre ak genn wàll mbaa mu yées ko julli jumaa gi daal leen di war waaye nag topp waa dëkk bee tax mu war leen bu doon ñoom dong julli jumaa du leen war ñi nga xam ne nag bu nawetee ñu dem ci seeni tool sax fa ba nawet bi jeex ñu door a ñëw nañ seetlu seen tool yaag dëkk bi jumaa ji nekk maanaam seen digganteeg soroor ba ca soroor ba la ñu tàmbalee nattub kilomètres yi bu tolloo ci juróom ak genn wàll rek yem ci mbaa mu yées ko ñu war di julli si jumaa su ko ëppee nag mën nañoo bañ a julli si jumaa ñu teel a jàppaale foofu ne koo xam ne julli jumaa waru ko du tee bëggee tuyaaba ñëw def si ko yàlla bindal ko tuyaaba ja te it julli jumaam day wecci tisbaaram kenn du ko wax ne ko war ngaa julli tisbaar boole ca gannaaw bañ sartee nag dëkkuwaay ba demee noonee na mbooloo ma itam doy ca barab ba nga xam ne daal la yittee barab ba daañu ca mën a taxaw seen bopp bu ñu néew néewaay bopp duñu wax nag lim ba ne faaw na mat nangam waaye daal na lim ba takku takku goo xam ne lay seen yitte daañu ca mën a taxawal seeni bopp duñu néew ba nga xamee ne rek faaw dañuy wooy ñeneen ñu dimbale leen ci lañ bëgg a taxawal ca dëkk ba
ay dëkk dëkkaan yu ndaw yoo xam ne benn réew ca du tee mën nañoo seet benn ca dëkk ya ñu tabax fa jumaa ja kenn ku ne yaa nga ca sa dëkku bopp te du tee nag bu bisu jumaa bi ñëwee ñu ñëw tase ca jumaa ja wa xuduur isnay xachara ak teewu fukk ak ñaar ci ay góor minhum ca waa dëkk ba baaqiina ñu di way des li salaamiha ba ca sëlmaluk jullik jumaaga wa in fii awwali jumuhatin ak doonte day ci aji jëkki jullik jumaa gu ñuy julli foofa
sartu ñaareel ba mooy mbooloo may fekkee jullik jumaa ga lu ñu néew néew nañ mat fukk ak ñaar ñu bokkut ak ilimaan te bu ñu def fukk ak ñaar dong yem ci day aajowoo kon ñu fekkee itam xutba ba boole ja te it bu fekkee ne ëpp ñu fukk ak ñaar day aajowoo ñoom ñëpp kenn bañ caa def lu yàq julleem ndax fukk yaa ak ñaar bu ci yemee am ca koo xam ne ak julleem daa yàqu kon mu daal di manqué fukk ak ñaar waaye bu fekkee ne lim ba mat na fukk ak ñaar rek doon ci sax ci ubbiteg jumaa ga la maanaam julli ga njëkk a julli foofa ci jumaa ja la itam ni ki ba ñu tabax jumaa ji moom dëkk bi bari woon na mbooloo mu doy ci lim bañ ca sartoon waaye gannaaw bi nag daa bari ñu toxu du tee ña fa des moom bu ñu matee fukk ñaar yu bokk te ilimaan rek mu doon julli jumaa gu jëkk ga ak muy geneen ñoo ci yemoo julli ga dal day wér ci sartub rek bu ñu dee fukk ñaar dong ñoom ñëpp ñu bokk teewe xutba ya seen julli itam dara bañ caa sikk ba ñu sëlmal waaye bu ci amee ñoo xam ne ba ñu tàmbalee xutba ak seeguñu woon te ñi fukk ñaar dong wala am ci kenn ku julleem yàqu rek dañ koy bàyyi te julli tisbaar ndax sart ba dal nuy xët kon sartu ñaareel boobu soo ko bëggee leeral mën nga ne dafa ëmb ci biiram ñetti sart bu njëkk ba mooy mbooloo moomee fukki ak ñaar nañ doon ñoo xam ne julli jumaa daa war ci ñoom su fekkoon ne fukki ak ñaar gone da ca am mbaa ku fa tukki si rek mbaa jigéen kon du doy te it fukki ak ñaar nañ bokk ca ñu dëkk foofa bu ci bëggee wañaale ay pël yu màngaan ca wet ga du baax
ak nag li ñu waxoon léegi ci ndegam fukk ak ñaar rek lañu ñoom ñëpp nañu teewe ba ilimaan di tàmbalee xutba te seen julli genn bañ caa yàqu ndax bu ca kenn yàqulee rek mu daal di manqué fukk ak ñaar su mbooloo ma xasee ëpp nag fukk ak ñaar bu ci amee ñu téewul xutba itam du ca wàññi dara waaye bu ñu def fukk ak ñaar dong moom te aajowoo ñoom ñëpp ñu fekkee ba ilimaan di tàmbalee xutba
wa imaamin ak ilimaan muqiimin ju di aji sax wa kaw nihi akuk nekkam alxaatiba di aji xutba ja illaa li xudrin ndara ngir ngànt sartu ñetteel bi mooy ilimaan mënta ñàkk ci julli jumaa ndax sañe su ko kenn kennoo boo ne nag ilimaan mënu caa ñàkk ab sart la saye ba wax ne day ëmbaat ci biir ñaari sart mooy ilimaan ja na fa sax duñ sar sax mu dëkk fa dëgg-dëgg waaye na fa sax sax koo xam ne dana tax julli jumaa ga war ko niki mu yéene fa am ñeenti fan baalu ko ëpp waaye bu fekkee dëkku fa te yéene wu faa sax lu mat ñeenti fan kon du mën a jiite bu fekkee itam dëkkul ca dëkk ba jumaa ja nekk waaye nag digganteem ak moom mu ngi toll ci juróomi kilomètre ak genn wàll mbaalu ko yées rek nga xam ne julli jumaa ga war na ko kon ba tey dana mën a jiite ñàkk dëkk ca jëmmi dëkk ba jumaa ja nekk waaye fa mu nekk teewul jumaa war ko kon ba tey mën naa jiite foofu nag daal ñu fi joxe aw cax mooy bu fekkee ne lim bay julli si dafa yem ci fukk ak ñaar ak ilimaan te ilimaan boobee moom ca dëgg-dëgg dëkku fa dafa tukki si rek tukki boo xam ne dana mat ñeenti fan ëpp ko nga xam ne julli ñu maaga war na ko moom rek mooy jiite mu door a baax ndax bu jiitee boo wàññee ñi ca des ñi fukk ak ñaar ak moom kon mu daldi doy